رسول الله رسول الله حبيب الله حبيب الله نبي الله Monsieur le Président Mohamed Macky Sall ñu ngi lay nuyu ci turi al khalifa al aam lil fayda tijaniya Cheikh Ahmed Tijani Ibrahima Niass nuyo boo xam ne mu ngi jugee ci moom law ci mboolee mi rakkam ak mboolee mi doomam ak jarbaatam ki sëtam waaye ak mboole mi muqaddamam ak képp koo xam ne ni aju na ci ñoom di rafetlu sa ñëw fii ci bés bii nga xam ne mooy bés bi gën a màgg ci ñun ci madinati mawlana cheikh ibrahim radiallahu anhu bi nga xam ne borom daf cee wax ne sara laha sirru madinati nabi xabasaha tanfi bi laa tarayu bi mu ne suma madina gii mbootëg madina yonent bi salallahu alayhi wa sallama moo ci royaat ba lu tilim rek madina dana ko dàq moo tax ku ñeme medina rek ku xam baay dana la ñeme te yow ñeme nga medina ma ne ku ñeme Medina ku xam Baay dana la ñeme te yow ñeme nga Medina liñ bañ ameeg yow audience liñ la njëkk ñaan mooy ne président bugg nañ nga ñëw ci gàmmu gi préciser wuñ benn bés ba ñuy wax loolu ndax Medina bu weeru gàmmu teroo ba ba ñuy gàmmuwaat ba mu am semaine lépp gàmmu la boo ci ñëwoon ñi gërëm ko waaye yàlla moo la bëgg a dimbalee tànnal la bés bi nga xam ne xol yépp Medina lañ jëm xol yi fi nekk ak yi fi nekkut yépp nga ñëw fii sëriñ bi kontaan ci sa teew ñaanal la yàlla muy ñaan yàlla ñépp di wax amiin te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne al mu'minu ahadu daa'iyayni kiy wax amiin ak kiy ñaan yépp ñaankat lañ waxoon la ci Dakar gannaaw bu ñu waxtaanee ci yenn projet yu ak ci Medina ma ne la président lii boo ko defee koo xamul ne xam na la ak ko yaakaarul ne dana la ñaanal dana la ñaanal te liñ tuddoon yépp am nañ ci kóolute ndax li ci njëkk moom nga firndeel nii ci jamono boo xam ne nii jamono bu xat la yaa ngi jugee ci tukki boo xam ne bu métti la waaye sànq ci kanam sëriñ bi dama laa bégal ma ne la Cheikh Ibrahima radiallahu anhu dafa julli ci yontu bi salallahu alayhi wa sallama mi nga xam ne moom wax na ne afaada ilayya minhu xaqan wa innahu afaada li gayri min fiyuudi xibaa'i mu ne yonent bi man la may dëgg-dëgg li ñi ci des yépp ci li ma desal ci may gi moom la leen may afaada ilayya minhu xaqan wa innahu afaada li gayri min fiyuudi xibaa'i loolu la wax wax nag bi muy tagg yonent bi salallahu alayhi wa sallama wax ne alayhi salaatu llahi tumma salaamuhu biha yastafi man jaaba naxwi almafawida léegi maa ngi lay bégal ci loolu ci kanam sëriñ bi ndax ma ne la cheikh ibrahim moo wax ne gannaaw bu mu jullee ci yonantu bi ne maa ngi ñaan yàlla ci barke julli googu ma julli ci yonantu yàlla tànn képp koo xam ne dagg na àll yi ba ñëw ci ñun ma ne la président àll nga dagg ba ak si fi te yàlla tànn la loolu rek nga soxla te loolu moom la ñaan ak bàyyi googu làmboo moo tax dañ lay ndokkeel ci loolu yonent bi Seydina Ousmane ali radiallahu anhu dafa wax wax ju am solo dafa wax ne inna allaha la yazau bilsultaani ma la yazau bilquran yàlla dana defé ci buur loo xam ne du ko def sax ci alquran loolu mun nañ koo dëggal ndax bëri na tey luñ bëgg mu xam nit jàng alquran mën na koo ñaan waaye yàlla teg ko ci sa loxo nga nekk ndimbal pour loolu boobaa jàngkati alquran yëpp dañuy nekk sa ndimbal te fii yëpp ay jàngkati alxuraan lañ sëriñ bi bu ko neexoon mu ubbi néegam nga diisoog moom génn dem kenn du leen gis waaye dafa bugg a wan ay mbokkam wan ay rakkam wan ay muqaddamam wan waa dëkk bi yëpp ne président nii la toll ci man pour ñoom it ñi xam fan la président war a toll ci ñoom ku am njaboot da ngay soxla lay ci sa njaboot soxlaay njaboot gi mooy soxlaay sëriñ bi ku ci def rek defal nga sëriñ bi njaboot gi tim sëriñ bi ñoom it sëriñ bi rek lañ am ku gërëm loo sëriñ bi rek gërëmloo nañ ko te wax naa ne liggéeyal na baayam ba am ngërmaandeem ku ko liggéeyal rek mel na ni bàyyi nga liggéeyal te bàyyi nag ku ko liggéeyal foo em sa éena moo fa em waaye foo bëgg àgg mën ngaa paase foofu foo bëgg a àgg rek mën nga foo paase. ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ndokkeel ñu ngi lay ñaanal. comme ni la ko sëriñ bi waxee léegi ne la président doon naa la ñaan la waaye danaa continuer ñaan googu di ko def loolu li muy firi mooy doon naa la ñaanal ngir am yaakaar ci yow waaye jox nga ay jéegu yoo xam ne dëgg-dëgg yokk na yaakaar yooyu ci ñun bu baax yokk na yaakaaram ci moom bu gërëmee mbooloo mi yépp gërëm nañ te wax na ne gërëm na kontaan na mu ngi lay ñaanal yàlla yàlla jàpp ci sa loxo dimbale la ba lépp loo ragal doo ko gis senegal ñi ngi jëm ci ay bés yoo xam ne ndam rekk nga ci bëgg mu ngi lay ñaanal yàlla may la ndam ndam loo xam ne tim dafay ànd ak dafay bu ñuy ñaan bu ñuy ñaan da ngeen di wax amin moo gën ngeen di tàcc bu ñuy ñaan dangeen di wax amin al aminu ahadu daayeyni ni ngi lay ñaanal yàlla jotal la sa bëgg-bëgg tam tombeek li nga xam ne nii moom mooy njëriñal réew mi njëriñal askan bi nga jëmee ñi ci senegal goo xam ne ku bëgg xam-xam da ko am ku feebar danga faju ku ñàkk danga am loolu yëpp ñu ngi la koy ñaanal ñu ngi lay ubbil xol yi comme ni nga xamee ne yow ci sa bopp yaa ubbil saal bii sa bopp ndax saal bi yaa ko ubbil sa bopp noonu lañ la ubbilee xol yi li des ci xol yëpp bu la neexee nga ubbi ko ñi ngi lay ñaanal yàlla mu defal la tawfiq ci loolu yàlla dëgëral sa ndëggu dëgg-dëgg bési gàmmu bés bu màgg la ci ñépp waaye bés bu màgg la ci Cheikh Ibrahima radiallahu anhu ndax bind na mbind moo xam ne moo ko bind Seydi Ali ne ko masu maa ñaan yonentu maanaam ñaan yàlla ci buntu yonentu daara ci bés gàmmu lu may may na ma kon nag yaa ngi nii ci gàmmu Cheikh Ibrahima ngi nii président teewalal sa eene teewal sa bëgg-bëgg ñu ñaanal la mbooloo mi yëpp wax amiin taalibe yi bii ba Singapour ñi ngi fii ci saal bi jugee ba Singapour jugee Amérique jugee Mauritanie ñi nga xam ne nii dëgg-dëgg lislaam wàllihaantuñ ko fen waaye nag fii nag ci Cheikh Ibrahima radiallahu anhu bañ xeeñtoo liñ xeeñtu ci moom utiwuñ ko feneen kon dañ lay ndokkeel bi nga xamee ne yàlla moola la jagleel loolu rasulallah